Baba Dieng moo leen nuyu baax yéen mbokki Touba ak li ko wër seen mbokk Baba Dieng moo leen di nuyu baax bëgg a fesal ay kàddu yoo xam ne dama bëgg sama mbokki dëkkandoo yi sama mbokki dëkkandoo yi xam ko bu baax ak sama mbokk yi nga xam dañ maa seet si tey ndax ku ne xam na ne diirub juróom-ñaari at yi maa ngi doon liggéeyal parti bu ñuy wax gëm sa bopp def naa ci lu nekk ba suñu amee parrainage tey ren ginnaaw yàlla sama jëmm ji moo tax ma yóbbu fu sori waaye nag lañuy wax ne ànd ak nit liggéeyal ko ba benn instant mu war la dañ ko fi faral di gis man nag dama amul fudut sama koñ bi moo tax ba ma xalaatee waxtaan ak euh, sëñ Moussa Diop mii nga xam ne dañoo yàgg politique boolewuñu ah mu am joxoñ bu ma joxoñ joxoñ bi ma joxoñ nag xam naa su ma ci tegoo dinaa am résultat bu leer ma ànd ak sama jigéen ñu baax ñi nga xam ne saa bu ma leen soxloo muy guddi di bëccëg dinañ ñëw wuyu si ma parti Macky Sall waaw ndax nit ku nekk lépp loo xam da caa nekk nekk saa say nawle fuñ toll di la gis ngay dem di ñëw amoo benn résultat koñ bii damay am problème mu sax dimbale leen si ay financement wala ma dimbale leen sax si ay bale wala ma dimbale leen si lenn lu dul mouvement ànd aar li ñu moom bii Ndiaga doon président man maay président bi lépp loo xam ne muy social lu ñu ciy def lu ma ci am fii laa ko indi wala mu yóbbu si yeneen base yi nga xam ne ndax li ma yor ci mbooloo ci Touba xajuñu fii dañu nag dañuy tàmbalee fii rek ñu woo ñi fi nekk su beneen yoonee ñu demaat beneen koñ woo ña fa nekk ñu xam ne nii lay léggéey waaye daal bis naka tey nañ ñëpp xam ne baaba Dieng tey élément wu Macky Sall la maa ngi si ginnaaw maa ngi koy soutenir ndax li mu def si Touba ak li fi réagir ku toogaat ba xalaat di nga xam ne liggéey na fi ndax boo xoolee première mooy autoroute Ila Touba. boo xoolee hôpital Cheikh Ahmad Bamba bii mu def bu yàggut ñu inauguré ko sa ay président jaar nañ fi mosuñu ko xalaat kon si moom la ko suñ borom dogalee kon ñu xam ne loolu du ay caaxaan du ay fo kon nañu leen si góorgóorlu baax a baax a baax fexe ba. bu ñu eggee si élection yi kenn ku si nekk ni nga teel a préparé teel a jug ñu wooteel président Macky Sall mu gañewaat fii si Tivaouane ndax loolu mooy suñu ndam ndax bu buñ ko defee kat si gil waa Touba ndax nit kat bu fekkee daf laa am lu mu la ji lu baax lu mu yëkkati parce que yéene daf si Touba xam ne daf koy bëgg fii si Touba di ko fi def ci lu baax ñëpp teg si bët. kon duñ waruñoo def lu du jàppale ko ci li nga xam ne moom la bëgg sa li mu bëgg kat man nañ ko man gi mooy suñu jëlee suñu carte yi fas ko yéenee wateel incha allahu rabbi li mu bëgg dana ko am si Touba su boobaa suñu ndam lay doon su boobaa suñu réussir lay doon kon na leen ci góorgóorlu baax a baax a baax ndax jàppale kon mooy jàppale suñu bopp kon nag ñu ngi leen di wàcce kàddu yi foofu di nuy suñu Moussa Diop mi ak sëñ Minicar sëñ Mohamed la ñoom nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy sama jàppandal ba ma mën a ànd ak ñoom liggéey bi kon ñu ngi leen sant bu baax a baax. mbokki ndaamaatu Touba Mosquée quartier Soxna Awa Bousso ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay euh, comme ni ko sëñ baaba daaneele rek foofu laay tàmbalee également ñun dañ leen a seet si ci turu président de la république ñun ñu nekk ay ndawu président de la république man Mouhamed Sylla ma ànd ak sëñ Minikaar mu sëriñ Saaliwu ànd ak sëriñ Xaasim Mbàkke ak sëriñ Saaliwu Jaxate jataay bii nag su yombee suñu ko mënee am grace à Moustapha Diop mii moo ko yombal kon Moustapha moo ñu joxoñ baaba mii wan ñu ab liggéeyam ñu xam ne kii kat ku ñu soxla suñu wet la ñu ñëw seet si leen jaare ko ci baaba Dieng fi ma bëgg a tàmbalee mooy président de la république képp koo xam ne dangay ngay fii ci Touba da nga amee responsabilité wu jàppale ko li tax mooy daf fee def lu tax nga war koo jàppale président de la république 2012 bi muy jël réew mi région de Diourbel benn scanner moo fi amoon ci wàllum santé mu ngi amoon euh, région mu ngi amoon hôpital Lukey bu Diourbel fii ma toog di wax ak yow région de Diourbel am na six scanner Touba gi am na ñeenti scanner fii ma toog di wax ak yow. hôpital Ndaamaatu président Abdou Diouf moo ko tabaxoon dispensaire la tabaxoon yàlla dogal na ne président Macky Sall moo ko def hôpital niveau 3 indi fa matukaay yu ko mat hôpital bii nga xam ne mooy mat Matlaboul Fawzeyni président Macky Sall dafa tabax hôpital ci biir hôpital parce que dafa tabaxaat hôpital ci biir def ci 6 milliards 500 millions yoo xam ne Touba la ko defal hôpital bii nekk ci yoonu Daaru Musti mu def ci vingt huit milliards def ci scanner ñaari scanner yu mucc ayib yoo xam ne kenn dootul jóge Touba wala tund wi di dem Dakar di scanner ji def fa rajo def fa rajo thérapique boo xam ne boo wëree Sénégal ba mu daj ñaar la am ci Sénégal benn bi principal la am beneen bi ci des président Macky Sall defal ko Touba gii kon gàcce ngalaama président Macky loolu mooy yu yi ñu mën a teg bët. bu weesoo Ila Touba bi bu weesoo mbedd yi nga xam ne foo jaar mi koy tëli mu jël vingt 27 milliards def ko ci assainissement kon ñun ku nekk war a ŋàññi wala xas wala dara waaye ku dëkk Touba waruloo moyele moyele président Macky Sall saw carte kon baaba jërëjëf merci beaucoup ba nga comprender loolu parce que fi mu ne nii jàpp naa ne mi ngi bëgg a leer ndax yàqkat yi duggoon ci dëkk bi di leen jaxaseeg président Macky Sall jàpp naa ne loolu tey dañ na jeex na parce que jigéen ñii dañ fi daan ñëw di leen nax kenn mësu leen a wax lu mu def juróom-ñaari at mosoo leen a gis seen bopp ci kenn bis ni ki tey jàpp leen ne ci baaba mii loola jeex na tey parce que tey jii ma ñëw fii di waxtaan ak yéen indaaleel naa leen sëricëb financement bu toll ci téeméeri junni ba pare itam ba pare itam dinañu xool lan mooy seen jàngoro lan ngeen bëgg ku leen ci jàppale ñu waxtaan ci ak sëñ baaba ñu ñëwaat fi beneen yoon mu gën a yaatu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax na yeen jigéen ñi di leen wax ne jigéen ñi ngeen denc seen i carte bu élection yi jotee dinañ leen defal ak jàppandal ngir ngeen mën a dem seen bureau de vote yi wooteel président Macky Sall mu am ndam buy am majorité ci président assemblée nationale na ci gi bokk te gëm nañ ne noonu lay demee wasalaamaaleykum wa rahmatulah. di wax ne wax dëgg yàlla suñ kontaan moom instant yi mënuñu koo wax parce que kontaan nañ toor ba fi kontaan yam ndax baabaa ngi nii du ma ma fen wax dëgg yàlla ndaje mu nekk woon nañu ko mais lii moom luñ naan lu ñu fàng kenn du ko jeex la yéen sama mbokku jigéen ñi lii la fàng la kenn du ko jeex. wax dëgg yàlla lii moom du ay nax parce que dañ cee suñu bët kon nag ñi wax. Euh, Macky Sall non non loolu président Macky Sall ñun dañ koy jàppale parce que li ma waxoon sama commencement wax rek ñun bëgguñ ci ay nax ku ñu jàppale ñu jàppale la bis naka tey dañ koy jàppale amuñ ci lu ñuy lim la lu ñuy laam-laamee dañuy ñaan suñ borom may ñu kàttan ak wér bu ñun dañ naan kenn ku ci nekk danga naan volontaire dem jël sa xaalis dem fay dem fay sama ki jigéen kenn du ma ci bàyyi ma fenn du ñoo daan volontaire wut suñu oto dem di fay di fay dem di voter suñu bopp lii nag léegi la lu mel ni mosu am. non non guleet mi ngi ndax lii mas na am ndax lii mas na am guleet mi ngi fii a am kon nag président ñu ngi koy sant bu baax a baax ñun jigéen ñi Lamaatou kontaan nañ torop torop torop di wax ne incha allah dinañ ko jàppale fas nañ ko yéeneen jàppale ci bépp côté nag ci bépp nag incha allah day gagné loolu kay sax ma dem ta ñëw.